Thank you. mbokki di rafetlu bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ak si génn kon ci xibaaru digg bëccëg bi li ci gën a fës mbirum Maïssata Diallo kon gone gu jigéen googee ñu ni euh, dafa faatu gannaaw ay gaañu gaañoom la ñu ca wax ñoom ay waajuram l'hôpital bu Pikine indi na ci ay tontu daq na ko directeur ba ci boppam moo yëkki ay kàddoom xam ne ni du xaalis boo xamante ni euh, laaj nañu ko waajur yi te gone gi facc nañu ko dëgg nan lañu ñu def baag ci boobee situation danañu fa fekk ji suñu ndaw euh, ci biir xibaar ni dana bokk ci li ñuy waxtaanee ak suñu gan maître Pape Sène président comité sénégalais des droits de l'homme maître ñu lay nuyu di rafetlu teewaay bi. ñu ngi lay nuyu Ngoné di la sant di ci kanam tuuti kon danañu euh, amal euh, waxtaan wi danañu it des ci wàllu euh, paj mi ak grippe bi ñu jàpp ni tar na ci dëkk bi ba tax xeetu médicament bi di mi siin manqué rawatina fii ci bori Wakam ñu ni limi po ñu wopp ñoo ko waral yeneen di garab nag fekk nañu leen ci biir pharmacie Guet Ndar foofe bu ñu fa àggee mbirum nappkat bi ñu fa faatit lañuy wax benn doomu Sénégal kon ak fukk ak juróom yoo xamante ni dañoo ami gaañu gaañu gàddu ko foot yu kon euh, Mauritanie ñoom la ñu amleeloon euh, xale bi mi ngi am lu toll ci ñar fukki at ak ñaar évacué nañu ko euh, ca l'hôpital régional bu Ndar kenn koo xamante ni jamono ji jéye ji ji am mi ngi woon ci biir gaal gi dina ci indi kon ay leeral ak lakk ci subak tey sànq kon ca boulangerie bi nekkee fii ci Yoff Tongoor yoonu aéroport waaye suñ borom def na ca sutura ña ca nekkoon ñëpp ca bâtiment ba jot nañu leen kon évacué ci loolu sapeur euh, pompier yi euh, ña nga fa woon waaye seen i jafe-jafe euh, taroon na it laata rek ñoo fay lakk gu ni mel Thiès foofee la nekk jafe-jafe étudiant ya ba ñu daal di jël dogal ni kon du ñu amal njàng mi ba lekkool ubbeeg léegi moo di campus ba nee nañ kon nañ ko ubbi waaye it lu jëm ca restaurant ya ñu ubbi ko ngir ñu mën a amalam njàng fii ak loolu amul nag xamle nañu ni duñu dugg ca yooyu amphithéâtre Cheikh Anta Diop dina ci indi leeral ponk yaa kon mbokk yi ni stut ñu yaatal ko mbokk yi dellu nuyu leen euh, rafetlu attente bi ak télévision Futurs Médias tàmbale ko ak la ñuy junj sànq euh, ci bopp xibaar yi euh, ca ndar benn kon ci nappkat yi ma nga cosaanoo ca Guet Ndar ñu laal ko kon ak bal fukk juróom yeneen ñoom it garde côte yu Mauritanie ñoom ñoo leen arrêté moom waxambaane bi nag am na lu toll ci ñaar ak ñaar ña ngi koy wàccee ci l'hôpital régional bu Ndar Mbaye Ndiaye kenn ci nappkat nappkat yoo xamante ni euh, jamono ji loolu daam mi ngi woon ci biir gaal gi moom moo ci indi ay leeral xam le ni euh, garde côte yu Mauritanie ñu dañu jëfandikoo ay bal euh, rayal ci kaw ñu ñu jàpp ni ay innocent lañ maanaam defuñu dara lii la wax ca la fa xewoon biir ci ci micro seenu Diop caméra bi Seck. dañ demoon géej si ngoon si. ay trois heures yooyu bi ñu demee nag ba si ba mu si guddi gi si leen mëriñ bi dàqee bi mu nu dàqee ñu commencé daw di génn zone bi mais mu door ay bal à l'air ñu ko ñu commencé daw mu jàpp benn gaal gi ak booy si ne woon gaal topp gi gaal mbaa gi moom bu ñu fexee bëlatoo nangu ñu wàññi mbësi mi nangu fay pour sawee sawee gaal gi mais xam naa ni tiiri na ba taay yàlla moo nu suturaal rek ba mu blessé si kenn mais yaakaar naa ni tóori tiir yi mu doon tiiree ñun ñëpp la doon la doon éliminé xale bi mi ngi ko laal si pooj bi quoi benn bi daf ko boros fii si loxo bi fii ñaari bal bi benn daf ko brosse benn bi dafa des si si yaram bi mais rojonoon nga ba gis naa bal bi mu ngi si yàpp yaram bi mais xëy na daañu ko fi leen mais xam naa daal métti na moom métti na wax dëgg yàlla sunu gouvernement war nañ si dox jéego bala ëpp loxo parce que bu bu fekkee ni benn kan mois bu ne ñu jam nit wala kan mois bu ne ñu blessé nit bu yàggee mën na indi loo xamante ni day ëpp loxo mais sunu gouvernement bi ñoo ngi koy ñaan daal bu si mënee jàpp moom ak lu mën am mu jox si tànk jàmm ba jàmm mën a del suñu diggante bi fii jàmm rek moo fi war a xaj parce que dañu jege yow waruñu am waruñu lii moom war na ma ñàkk mango ko nappkat boobee fàttali ko mi ngi ñaar fukki at ñaar ñu jëm ko bal euh, garde côte yu Mauritanie la ni ñoom ñoo def euh, lu ni mel ci loxo ci pooc fukk juróom yeneen teg nañu leen euh, loxo ak lakk ci suba ca boulangerie ba nekkee ca Yoff Tongoor fii kon ci yoonu ko aéroport liggéeykat ya fa nekkoon ñoom nag mujj nañoo fexe daal ba génn ci laata mbir mi di leen indil ay loraange kenn jëlewu ci ay gaañu gaañu sapeurs-pompiers ñoo fa teewoon nag eh, ngir eh, jéem a fay googee lakk waaye jafe woon na ndax ay stocku gasoil yu fa nekkoon ak i farine Ibou Diouf Abdoulaye Diallo ñu fa xëyoon. ngi fii ci Yoff Tongoor rawatina ci boulangerie bi ñuy duppee Chopin fii nag bëri na ci askan wi ñi nga xam ne rek coow li bàyyeekoo ci làkk wi moo leen yee loolay gannaaw ba boulangerie bi jàppee rek mu jural askan wi ay njàqare. simplement dañ naa woo 7 heures du am na. mélange bi ñu ngi yi bi mais kenn gaañoo non léegi dañ ay 7 heures 35 la ñu owoon pour wax daa am benn feu de boulangerie bu nekk yoonu yoof bi route yoof bi bu nu ñëwee fekk neen fii benn boulangerie boo xam ne euh, superficie 200 mètres carrés la benn partie bi yëpp commencé di lakk léegi bu mu commencé lakk bu ñu ñëwee ñu gis loolu après ñuy mais risque bi mooy amoon neen tuuti jafe-jafe si amoon neen benn chaudière bu nekkoon si kaw boo xam ne dafa doon menacé exploser ak aussi ay fuite de gasoil boo xam si kaw si terrasse bi la nekk réserve gasoil yu nekkoon foofu noonu. amul kenn ku fi ñàkk bakkanam waaye li fi yàqu am na solo lool ñi nga xam ne rek ñooy sapeur pompier yi ñëwoon nañ ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo fi yàqule. léegi bu léegi euh, ay booru huit heures mooy ay sept heures cinq ay huit heures cinquante deux léegi nag mun fay nen xal bi yëpp ñu fay ko léegi instant bi dañu koy euh, refroidir tout simplement. ngir mën a xam ana lan mooy jur jëye bile waa gendarmerie moom ñëwoon nañ rek ngir mën a ubbi ab enquête. ñu xam xamle ne fii ak fan yu néew dinañ jébal seen liggéey. loolu amaguma ci information loolu waa gendarmerie suñu paree nañ def seen enquête ak suñu paree nañu ko wax. boulangerie Chopin nekk fii ci Yoff Tongoor bi mooy ñaareelu yoon bi muy làkk fukki at ak juróom gannaaw ba mu njëkkee am yenn jafe-jafe yi fii ci Yoff Tongoor ñenn ci askan wi yeewoo njaxare ñoom ñi nag dinañ xaaree fan laata ñuy mën a amaat mburu mi nga xamante ne dañ ko fonkoon lool. université bu euh, Thiès ba ñu ubbee ñaari fan ci weeru octobre ba tey jii étudiants yi ña nga dogal banque loxo gu amul ab campus social ba la ñu bëgg kon nañu ubbi ko maanaam euh, jox leen léegi restaurant yi it jamono ji lépp nga tëjee euh, ñu gis ni ca condition yooyee njàng ma du mën a dox ba tax ñu jël décision bu ni mel chantier it na muy doxee ci université ba ñu gis ni yéex na loolu Cheikh Anta Diop la terse yi la ñu fay fekk ji. ñu ngi fii ci université bu cees fii de am njàng amagu fi ndéem nag étudiants yi ñaari fan ci weeru octobre la ñu ubbi woon ba léegi waaye dañoo bank seeni loxo ne duñu jàngi ci université bi ndaxte jamono yi nee nañ lu jëm ci seen wàllu dëkkuwaay kenn ubbiwu ko te it restaurant bi nee nañ màggataay gi jéggi na doyo poussière na lool te kenn mënu ko ubbi ngir ñu mën di fa xéwloo étudiants yi sax ñoom lànk nañu nee nañ de dañoo décréter grève illimité étudiants yëpp dañuy toog seen kër kenn du dikki ci université bi. rentrée universitaire bu université Thiès dañ koo programmé le 2 octobre. ba jonn yàlla tey jii may wax ak yéen kuddu nanguta ubbi suñu restaurant yi ak suñu campus social yi woo naa directeur kuddu tontu na ma mu ni ma ñoom seen budget 2017 dafa jeex te ba tey jotaguñu ndigalu ki nga xam ne mooy ministre Mary Teuw Niane vraiment pour. fi def prolongation continuer gérer sociale université de ba course ba nga xam ne li nga xam mooy course de Thiès daal di daal di taxaw. ñun nag tey décrété nañ euh, mot d'ordre de grève illimité duñ fi yam nag fan yi dégg dinañu dégg dinañ wàcc si si tali bi donc dinañ wan ne vraiment. cees dañoo sonn dañoo tay rax ci dolli étudiants yi nee nañ leneen loo xamante ne lu leen yitteel la mooy ñu àggale lu jëm ci wàllu chantier université yi ndaxte nee nañ bâtiment yi bi ñu ko fi sampee ba léegi yàgg na lool waaye nag ñu gis ne ñoom liggéey bi day dox doxini kàkkatar ministre bi da ba mu recevoir coordination bi en janvier 2016 daf leen woon chantier yi dinañ ko réceptionner mois de décembre chantier yi tey ñëpp gis nañ ko waxuma la ouvrier mais manière bar sax nekku fa donc mu nekk loo xam ne vraiment lu ñuy ñaaw la en tout cas ministre Malick Niang ñun kontaan nañu si moom étudiant université kontaan nañu si moom te ñu ngi koy xaar ak pied ferme étudiant université Thiès nag di sàkku nag ci jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu njàng mu kawe mi mu gestu leen fexe nag ba ñoŋol lépp ñu mën a delluwaat ci amphithéâtre yi fii ci université bu Thiès mangook soxante Diop euh, Latir Sey la ñu doon euh, jokkal noonu ca Thiès ñu ñu doon indi lay leeral euh, ci banque loxo gu amul làpp wax ci beneen dossier mbirim Aïssata jàlloo moo di xale bu jigéen boobee nga xamante ni dafa faatu gannaaw gaañu gaañu yoo xamante ni kon amoon na ko ay waajuram nag naqarlu nañu ko taxawoo ca l'hôpital bu Pikine l'hôpital bu Pikine indi ci kon ay leeral directeur am ci boppam moom moo ca wax ni laaju ñu leen xaalis te gone ga it faj deux cent mille lañ doon wax it euh, mbir mi sori loolu euh, yooyee koppar Salif Sow mi ngi ci ligne bi ngir indi ci leeral euh, Salif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ngoné Ngom. Salif lan moo xew dëgg ci mbirum Aïssata Diallo ak waajur yi lu leen naqari waaye it l'hôpital ba tontu nañu. directeur bi nee na deux cent mille francs nekkul ne moo tax ba xale boobu tudd Aïssata Diallo amoon fukki at ak ñaar ñàkk bakkanam directeur bi tamit ba tey nee na nekkul prise en charge bu bon moo tax ba xale boobu tudd Aïssata Diallo amoon fukki at ak ñaar ñàkk bakkanam li am kay mooy ne koppar yi sax motul deux cent mille cent quatorze mille la ñu waroon a fay te nee na facture ba ñu ngi ko fay ginnaaw bi nga xamante ni xale bi la ñàkk na bakkanam mooy fukki fan ak juróom benn ci weer yu ñu nekk moo nekk ci date bi nga xamante ni moom lañ def ci facture bi ah léegi nag ki nga xamante ni mooy directeur ci faj kon xale bi di médecin bi moom it moom jox ko kàddu nee na def na lépp loo xamante ni mënoon na ko waaye yàlla moom moo ne xale bi daal du dund looloo war a tax ba xale bi ñàkk bakkanam nee def na opération ba ay minuit di jot ndax ba mu gisee ne xale bi urgence am na ci moom loolu la def waaye neen ba mu xëyee ci ëllëg si gis na daal biir bi dafa continuer di dëgër waaye daal mujjantal nga ci la xale bi ñàkkee bakkanam waaye docteur bi daal wedd na loolee lépp nga xamante wax nañ ko nee na bi lépp loo xamante ni waroon na koo def def na ko médecin bi nga xamante ni moo doon ci ay tontu kon wala boog ñu bari indi ay tontu waaye jamono ji ñoom ñi ngi ci dëj bi waaye tamit ñi ngi amal li nga xamante ni mooy réunion soxna Ngoné li ñu mën a jàpp daal mooy ne niñ jabar ji wax euh, ak li waa directeur hôpital bi wax waa direction bi kon ñaari wax yu safaanoo la jamono ji mais Salim rapidement ci lan lañu sukkandiku ñoom ba jàpp ni euh, paj mi baaxul ba ba coow li jóg nii waaw euh, ñi nga xamante ni ñooy njaboot gi ñoom bu ñu ñëwee dañ ne dañ leen laaj deux cent mille ñàkk bi ñu ñàkk jox deux cent mille bi moom moo waroon tax ba prise en charge bi yéexoon mauvaise moo tax ba xale bi teel koo ko defal ay garab teeluñu koo opéré ak yu nu mel ba xale bi jaaree fa ñàkk ba kanam loolu mooy première coow li loolu waa hôpital bi weddi nañ ko ba mu set nee na nekkul ne ba ñu ñëwee dañoo laaj xaalis ndaxte ñoom nee nañu boo xaalis naka la xale bi def ba ñàkk bakkanam loolu ki nga xamante ni moo doon xale bi laaj boobu moom la ñu ko moom nee na euh, li nga xamante ni moom it moom la waroon a def def na ko ndaxte nee na xale bi dafa amoon gaañu gaañu fi nga xamante ni lay toogee dafa am lu ko dugg nu ko nii nga naan bant waaye moom nee na du wax bant ndaxte gisul loo xamante ni wala nee bant na waaye daal dugg na ba li nga xamante ni mooy euh, li ne ci biiru xale bi am fa ay gaañu gaañu yu bari nee na ba ko opéré gis loola réparé na loolu waaye nee na tew ne xale bi mujjee naa ñàkk bakkanam kon daal ñaari wax la yoo xamante ni ñaari jàngat lañ ko mën a am benn bi mooy wàllum koppar bi beneen bi mooy wàllum faj mi ndax euh, opération ba na mu waroon demee demee ni ni ndax njaboot ga teel nañoo yóbbu xale ba hôpital loolu daal mooy laaj yi nga xamante ni fi ñu toll nii amu ci toll muy dossier boo xamante ni kon euh, faaw ñu toppaat ko Salif Sow di la ci euh, gërëm directeur l'hôpital bi sax euh, du ñàkk mu ni cay leeral ndax convoqué nañu ko moom it ca ministère gannaaw coow li réunion de crise maître Pape Sène ko yaay gan gi président comité sénégalais des droits de l'homme gis nga ko ci wàllu ak ak yelleef sañ-sañ ñu faj la ci yenn situation yi faj la ba noppi door la laaj ay koppar bokk na ci li nga xamante ni moo indi coow li mënees nañ jàpp ne xeetu coow yi duggulee déet euh, cas bi ndax jot ngeen ci euh, xam dara wala yéen koy door a yëg euh, jërëjëf ngoone bon d'abord damay wax ne cas bi jotaguñ ci xam dara mais maanaam mbirum santé droit fondamental la c'est-à-dire le droit à la santé dafa nekk droit boo xam ne ni tey Euh, état Sénégal moo am obligation jox ko citoyen bu nekk euh, te loolu defe naa ne autorités yi nga xam ne ñoo fi nekk tey xam nañ ko gis nga programme ak plan yi nga xam ne ñu ngi koy développé. CMU CMU xam nga programme bu mag la boo xam ne nii xëy na dafay gën a ñoŋal suñu maanaam euh, niveau de santé au niveau de Sénégal mais luy am nii d'abord dañuy vraiment di jaale mbokku xale ba bu nga xam ne xëy na bàyyeekoon na fi mm-hmm. mais man li ma ci mën a retenir rek mooy d'abord il faut que au niveau des structures hospitalières yi nga xam ne moom lañ am moo xam district de santé yi la moo xam ci poste de santé yi ba ci case de santé yi il faut ñu gën a Euh, indiwaat suñu xel ci wàllu accueil ak orientation parce que xam nga accueil ak orientation dafa. dafa am solo l'impression que xëy na éternel problème dañ ko dalee wax ak léegi ñu ngi ci def ay jéego mais chaque fois euh, façon yi day am taxawu ñu wër nañu hôpital yi ba sonn euh, doon a ñëw mujjee fii ba tey ci ci ci réew mi 2017 lii bokk na ci li ñu tardeel waaw mais lu lu lu du yoon du yoon c'est-à-dire man jàpp naa ne tey fi ñu toll tey ci troisième millénaire. Euh, en fait euh, du ma du ma juger un peu euh, l'affaire parce que gis nga ñaari version de façon générale man dama ne tey waratuñu toll foo xam ne nii véritablement dañuy évacuer nit hôpital ñuy wax ne ñàkk na bakkanam ndax amul benn prise en charge bi ndax problème d'urgence ñëw na ñuy laaj mbiri xaalis yooyu defe naa ne loolu war nañ ko weesu tey tey boo demee ci réewi tubaab yi mais nangootuñu par exemple jigéen di mucc ba di ci ñàkk bakkanam wala doom di ñàkk Sénégal aussi war nañ toll foo xam ne nii tey waratuñu nit ñu évacuer ko donte dafay ñëw xëj na dooleem tolluwul noonu mu nekk cas urgent vraiment ñu toll fii ñu toll tey ba ñuy wax naan euh, problème mu deux cent mille la wala problème mu cent mille franc la defe naa ne loolu wax dëgg yàlla war nañ ko dépasser mais cas bi damay wax ne. Euh, wax nga ko léegi euh, autorités yi nga xam ne ñoo ŋànk santé convoqué nañu le le directeur de l'hôpital dañuy xaar mais tout compte fait mm-hmm. jaadu na ñu ubbi benn enquête parce que enquête bi dina tax tey ñaari version yi nga xam ne am nañu ko véritablement parce que la responsabilité médicale dafa am cest a dire que fii ñenn ñi famille bi ñu ngi wax ne dañu ko accueillirul kooku mën nañu xalaat ne bu fekkee am na voilà bu fekkee am na mu ñàkk bakkanam ci ndax taxawuju ko ca bañ ko war a taxawoo loolu dafay indi lu ñuy wax naan euh, non assistance à personne en danger parce que ku ñu indi loon mu sonn mais bu fekkee ci biir paj mi ci biir paj mi am na paj mi ci loo xam ne ni sooxe na ci comme ni ñu koy waxee parce que dégg nga ki nga xam ne interprète mu ko def te mu doon def li nga xam ne mooy opération bi wax na moom def na li mu war a def ñële deful li mu war a def loolu dafay interpeller la responsabilité médicale ci na xam ne moom la waroon a peut-être jumtukaayam waroon del ca jëlu ko donc man jaadu na tey pour vraiment ñu édifier sénégalais yi et puis pour mën a apporter des correctifs ci yeneen structures yi nga xam ne xëy na jëf yu mel noonu tey ñu ngi ko fay. nemmeeku mais mais ci jëf yu mel noonu ak li ngay wax noonu droit la santé war nañ négligence yooyu wax naa ko sànq. Mhm. yàgg nañ ko wax wala erreur médicale yi mais souvent euh, côté boobu Sénégal defagu ci tellement ay jéego ci yéen ñi yëngu ci wàllu àq ak yelleef ndax masla bi après ak ndogalu yàlla yàlla moo ko dogal fii la waroon a yem nii la waroon mën a demee bokk na ci loo xamante ni tam. Mhm. Euh, gars yi war nañ ko mën a xoolaat pour gars yi ñuy gën a respecter i droit ci biir structure sanitaire. mais effectivement moom laa la wax léegi ne la droit à te loolu kenn mënu ko accepter sénégalais feebar dem ci structure hospitalière nekk urgence mais c'est très médicale ñu koy nangook façon yooyu. Euh, bon c'est vrai que am na parce que man mi di la wax en tant que avocat gis naa ci ay procédures yoo xam ne nii effectivement on a engagé la responsabilité euh, pénale même civile de certaines structures hospitalières yoo xam ne que nii cas yu mel noonu am na. am na fi te ay condamnation am na xëñ na nag bariwul parce que ñi nga xam ne moom lay dal seen kaw euh, dañu dul xam souvent fan la ñu war a jaar parce que ni nga wax aussi dañu nekk ci réew boo xam ne nii réew jullit la et puis am aussi benn culture bu ñu am xëñ na dañuy jàppane rek nit ki bu ñàkkee bakkanam yàlla moo ko dogal ci surtout ku ñu yóbbu ba hôpital mais euh, d'accord yàlla am na yàlla yàlla bay sa tool aussi il faut ñu xam ne que yàlla lu am yàlla la mais nag yàlla aussi daf ñu ba pare am na yii jumtukaay ngeen war a jël jël yi bu ñu mettre en place des structures hospitalières former ay nit mais defe naa ne c'est pour que bu amee ay cas d'urgence bu amee ay malade ñu war leen mën a jël ci anam yi nga xam ne moo tax man damay wax encore une fois de plus ne euh, dans cette affaire il faut que ñu ubbi benn enquête parce que enquête bi dina permettre un peu ñu lever yenn équivoques yi mais dinañu permettre également ñu mun a envisager comme li ngay yoo xam ne ni droit à la santé maître Pape Sène waaye it euh, yeneen waaye li fii ci Sénégal euh, liberté yeeg yooyu yëpp boo ko doon jàngat fan la ñu toll def nañu ay jéego wala on n'a pas trop bougé euh, tolluwaayu àq ak yelleef ci réew mi. waaw loolu vraiment man je crois que tey war nañu parce que dama ko yàgg di wax parce que tey damay jiite kuréel gi nga xam ne mooy comité sénégalais des droits de l'homme ñu dénk ko lépp luy àq ak yelleefu doomu aadama ci réew mi wàllu promotion ak wàllu protection damay yàgg di wax ne Sénégal la situation des droits de l'homme est une situation normale maanaam àq ak yelleef doomu aadama sooxewu fi noonu maanaam amul sooxe tekkiwul de des fois du ñu gis même aux États-Unis en France da ngay gis des cas isolés mais bu ñu defee un jugement global un jugement d'ensemble vraiment la situation des droits de l'homme au Sénégal est normale li koy wane tey mooy gis nga Sénégal démb ñu ngi ko admettre ci conseil des droits de l'homme des nations unies muy kuréel goo xam ne nii tey kuréel gu am solo la ci wàllu mbootaayu xeet yi di toppatoo ak di saytu lépp luy wàllu promotion ak protection ci àq ak yelleef doomu aadama ci àdduna bi kon tey bu fekkee ne que Sénégal admettre nañ ko fa d'ailleurs au passage ma ci profito vraiment ci turu comité sénégalais des droits de l'homme bi nga xam ne xëy na mandat boobu tey ñun lañ ko jox fii di féliciter le président de la di féliciter le gouvernement du premier ministre mais également di féliciter suñu diplomatie parce que wane nañ encore une fois de plus ne am ñu jàmm ak réew yi mais wane nañu. encore lu ñu mën a lu ñu mën a juural fii xëy na dem toogaay beek euh, wax ci euh, penc moo xamante ni euh, réew yu mag yi ña nga fa et tout mais ñun ci wàllu àq ak yelleef parce que yaa ngi naan xëy na situation normale la. Mm-hmm. mais ci wàllu politique gi gars yi yenn saa ñu naqarlu marche yu ñu leen di tere ñu ngi junj ñenn ñoo xamante ni ay prisonniers lañ leen di jàppee wala yooyu terewul jàpp nga ni c'est dans l'ordre normal des choses. non mais xam nga aussi du rek Sénégal boppam la fay pour Sénégal c'est-à-dire que mbootaayu xeet yi la. mën a refléter ñun xëy mais bien sûr bien sûr dafa am solo dafa am solo ci suñu nekk waayu àq ak yelleefu doomu xëy na jéego yi nga xam ne tey moom la ñu def ak fi ñu toll ñu ko gën a yokk en tout cas ñun boo jëlee tey le comité sénégalais des droits de l'homme bi may jiite tey le fait que Sénégal nekk ci conseil des droits de l'homme ñun daf ñu amal importance importance bu rëy la ñu amal parce que tey boo jëlee principe de Paris yi nga xam ne ñun ci la ñu tënku mais ba ñu koy jël en 1993 balaa euh, assemblée générale des nations unies di ko voté mais commission des droits de l'homme des nations unies moom moo ko njëkk a approuvé en 1992 te commission boobu moom la conseil des droits de l'homme des nations unies remplacé en 2006 kon mu mel ni même ñun ñi nga xam ne tey mandat bi ñu ñu jox ci loolu la dañoo tënku ci conseil des droits de l'homme ñeneen ñi nga xam ne également dañu yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama ci àdduna bi yeneen réew yi dañ ci tënku kon euh, présence su Sénégal euh, nekk na loo xam ne nii d'abord dafay dëggal ne état situation globale des droits de l'homme Sénégal normal en fait c'est une situation normale mais dina tax également Sénégal yokk ay jéegoom ci wàllu sàmm àq ak yelleef doomu aadama. fan lañ war a jëkkee tey ji bu ñu doon yokk wàllu waa wàllu jéego yi bari na côté yu ñu yuuxu prisonniers yi bari ci demoo Ndiaye jëwriñ yi eh, ñi ngi eh, hmm. di ñu dénk wàllu mi ngi fa doon visite mais xëy na journaliste yi di ñu dugg mais boo taxawee ci biti rek di nga xam ni eh, condition yi fii ci biir metti na tàngaay bi ngay sentir nii ñu ngi dund lu metti longue détention yi yooyu ce sont des problèmes yoo xam ne bi ñu ko dalee waxtam du tey yéen di nga fa dugg lan ngeen ci def concrètement ci également il faut ñu nangu ne que euh, du liggéey boo xam ne nii ci benn fan wala ñaari fan lay sotti c'est vrai constat bi mooy euh, la situation c'est-à-dire condition de détention yi parfois am na ay lu metti parce que euh, boo jëlee prison bu mel ni Rebeuss tey capacité d'accueil mu dépassé ko déjà loolu rek jafe-jafe la sans compter maintenant yeneen jafe-jafe yi nga xam ne xëy na surpeuplement prison yi da koy indi defe naa ne bi ñu fi génnee ci mutinerie de Rebeuss bi am na ay matukaay yoo xam ne ni gouvernement bi jëloon nañ ko gis nañ réforme yi ñu fi jël boo jëlee par exemple tey wàllu surpeuplement boobu ngay wax gis nañ ne réforme nañ suñu code de procédure pénale ba nga xamee ne que nii tey li nga xam ne mooy les chambres criminelles cour ko supprimer d'abord mhm. ñu créer des chambres criminelles yoo xam ne dañu ko réformer waat def des chambres criminelles permanentes yoo xam ne ni dañu ko placer au niveau des tribunaux de grande instance loolu dina permettre ñi nga xam ne xëj na ñooy def souvent longue détention muy ñi nga xam ne affaire criminelle la seen àtte gën a gaaw pour que ñu xam fi ñu féete pour ñu mën a désengorger les prisons mais gis nañ également mais jàllale en attendant di xool sa oui loolu c'est effectivement. bi jafe-jafe boobu amee problème mandat de dépôt également gisoon nañ ko ci mais foofu également damay wax ne il faut qu'on beaucoup plus prudent parce que nag aussi dañu am une politique criminelle mais est-ce que aujourd'hui ñun dañuy opter pour libérer des gens yoo xam ne nii xëy na ils sont dangereux pour la société sous prétexte que dañu bëgg a je crois que aussi suñu suñu code pénal ak suñu code de procédure am na ay coppite yu mel noonu yu ñu ci def c'est-à-dire ay pel ay peine alternative c'est-à-dire au que tey ñu lay jàpp di la tëj ñaari at nga tëdd kaso ñu lay nourrir te gis nañu ne que c'est vrai état bi yokk na pension bi ñuy jox journalière mais nag di la nourrir loolu mën na indi ay jafe-jafe mais dañu am ay peine alternative yoo xam ne nii xëj na mën nañu ci bokk nangoo tribunal également accordé la ko au lieu ngay def une pen privative de mm-hmm. liberté nga def peine boo xam ne nii ci biti nga koy tëdd mais astreint à des travaux d'intérêt public donc yooyu ay xeetu réforme la yoo xam ne nii xëj na mën na indi saafara mais lii très rapidement maître beneen wàllu xëy na ñoo mm-hmm. xamante ne jamono ñu ngi ci prison yi di wax wàllu àq ak yelleef politique yi di ko faral di wax mbiru xalifa Sall jàpp nga ni ñii dañuy prisonnier politique la euh, ñenn ñi jàpp ni am na lu mu def yoon mooy def liggéeyam yow mi yëngu ci wàllu àq ak yelleef noo man ngoone de façon globale hein et ça le di en tant qu'avocat d'abord gëmuma une affaire politique parce que man dama jàpp ne tey magistrat yi nga xam ne ñooy nekk tribunal te dama koy faral di wax euh, amuñu benn appartenance politique xëj na mën nañu ne procureur de la république am na benn cordon ombilical bu ko lié ak ministère de la justice yéeg peut-être ba ci exécutif loolu xëñ na mën nañ ko mais gis nañu ne Euh, poursuite pénale maanaam de façon générale la procédure pénale dañ ko serrer en des étapes procureur même bu fekkee ne dafa tënku ci ministre de la justice ñu mën a jàpp ne amul indépendance te buy def dafay defal exécutif mais juge d'instruction nekkul ci siège boobu mu mel ni que tey li procureur de la république mën a nangu juge d'instruction du ko nangu parce que moom am na ay règles yoo xam ne ni dañu koy jox une indépendance totale vis-à-vis des partis avocat du procureur et vis-à-vis de l'exécutif. avocat bi mooy wax wala membre APR. non non non pas avocat lii ay texte la à dire que membre APR créé wu ko man avant may nekk membre APR damaa nekk avocat. te loolu dama ko doon pratiquer ci prétoire yi. mais mën nga solo robb sa parti ci ci dossier bi. du tout du tout parce que xam nga sama parti même ëllëg bu fi jógee it lii ma lay wax ni daf fiy demeurer mais loolu tekkiwul ne tekkiwul ne effectivement war nañu gën a mën a dem ci ay réformes yoo xam ne que ni xëj na comme li nit ñiy wax. pourquoi pas couper le cordon ombilical entre le ministère de la mais man du suma option mais am na ñu koy wax. yooyu dañ ci war a parce que bu boobaa tamit xëy na magistrat est-ce que du yokk yoon euh, liberté ñu xam ne moom seen bopp président dégg nañ ko fa ca la loolu. Mm-hmm. mënu ko fi weddi yenn dossiers yoo xam ne moo ca teg loxoom. bu ci tegee loxoom ça veut dire que am na euh, benn pouvoir quand même. non non non non non man je crois que loolu débat boobu vraiment du naa ne président de la république mënul teg loxoom ci dossier bu fekkee bi war na mën a egg ci moom laa la wax ne la étape. procédure pénale dañ ko sérieux procureur de la république mooy def poursuite mooy engager les poursuites mais bu ko engagé. moom du jël décision de condamnation la preuve boo jëlee lu mel ni instruction procureur bu xasee ba saisir juge d'instruction bi juge d'instruction bi moom mooy am nag pouvoir pour conduire l'instruction. très bien mais juge d'instruction boobu c'est un juge indépendant. waaw rapport ITIE bi aussi vraiment dañu koy saluer parce que depuis presque 2013 bi Sénégal adhéré à l'ITIE gis nañ ne mu ngi def ay jéego ci jéem a euh, am jéem a sàmmonte ak la gouvernance la bonne gouvernance et la transparence en matière euh, minière donc loolu vraiment dañuy saluer que 2013 adhésion bi amoon na un premier rapport am na benn deuxième rapport tey ñu génne troisième rapport bi mu ñuy defal la situation globale ci li état Sénégal am ci ci maanaam li jóge ci industrie minière yi li jóge ci industrie pétrolière ak gazière yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni xëj na dañ ko dëxëñ ci rapport bi ak li nga xam ne am na solo te mu defoon fi coow la publication des contrats yooyu donc rapport bi lu am solo la mais dañu gis ne également rapport bi dafa am benn point bu positif. parce que boo jëlee rapport na ko terewul coow bi coow bi coow yaa ngi ci gars yi seen xel dalul li li ci lëndëm ci seen i gët bari na. mais coow du ñàkk xam nga euh, Ngoné dañu nekk ci réew moo xam ne nii tey defe naa ne amul lenn loo fi def te coow du am mais li am solo mooy li am solo mooy ITIE ITIE du Sénégal moo ko moom c'est-à-dire ITIE dañ ci adhéré au niveau mondial la. Sénégal rek nekku ci donc bu fekkee tey Sénégal adhéré na ci déjà le fait d'adhérer à l'ITIE te amoo obligation pour adhérer ci c'est-à-dire ça c'est un pas deuxièmement nga adhéré ci di jéem a nag ak la nga xam ne moom moo nekk principe yi tënga utile mais déjà loolu c'est salutaire et je crois que rapport bi nga xam ne génn nañ ko tey di wane ne tey on est passé de 117 milliards à 118 milliards boo xam ne ni tey euh, am nañ ko en termes de rentrée d'argent yu jógee ci li nga xam ne moom mooy industrie minière ak pétrolière yi mais defe naa ne nga xam ne mooy la bonne gouvernance waxtu bi moo ñu def ñu lay gërëm maître Pape Sène président comité sénégalais des droits de l'homme moo nekkoon gan gi kon ci xibaaru digg bëccëg bi maître ñi ngi lay jaajëfal jërëjëf nga ci wàllug xibaar yi ak euh, rinomycine euh, médicament la boo xamante ni euh, ci wàllug grippe gars dañ koy jëfandikoo waaye mel na ni rupture de stock dafa am ci pharmacie rawatina yi ñu doxantu fii ci boor yi wakam ñi jamono ji jamono ji ñi feebar bi tëral la ni kon moo bari yeneen ña nga fa Aïssatou Paye Marien ñoo fa xëyoon. garab bi ngeen di gis nag euh, contre la grippe nekk garab goo xamante ne dañ koy laaj lu bari ci pharmacie yi ci période bi ñu nekk ni waaye fu mu toll ni dafa am manquement bu mag ndax ñu bari dañu grippé ci waxtu bi ñu nekk ak tàngaay bu métti bile. fréquemment ñuy dugg yëpp dañuy laaj dama xaw a grippe yenn saa ñu xam kii ñu xam jàpp tuuru Rhinomécine bi peut-être y avait des copains wala kii yoo xam ne dañ leen ko bindaloon mais demande bi moom presque Rhinomécine bi moo ci ëpp quoi. mën nañu wax ne Rhinomécine bi rek presque moo gën a nekk en rupture de stock presque. ça ne fait pas longtemps yaagul. xam na une semaine avant une semaine à deux semaines quoi. demande bi daal moo moo bari léegi quoi parce apparemment. gars yi dañ koy ñëppay feebar presque ci grippe bi quoi. wute na ak pharmacie bi nga xam ne Fatma Salé moo ko yox fii ci Wakam lépp nag mi ngi jaar yoon amul benn garab bu manqué. ñun boog sentiruñ ko suñu pharmacie franchement amuñu yooyu problème. c'est vrai que temps yi y en a la gën a bëri quoi par rapport ak avant et tout ça et les années passées aussi. li fiy dugg ci jour journée bi bëri na moom wax dëgg yàlla. je suis grippée machin voilà. bu rinomycine amoo leen nag ci yenn pharmacie yi ñoom pharmacien yi am na yeneen garab yu ñuy proposé seen ay patients. waa loolu moom bëri na moom ñoo xam ne dañuy xaw a def automédication dañuy sentir ne je ne me sens pas à l'aise dama sooj xaw a grippé ñëw jubal ci pharmacie bi au ñu dem ci hôpital bi. dans ce dañ leen di proposer parce que rinomycine bi kese nekku fi y a d'autres médicaments pour grippe bi comme Fervex Doliprex Rhinogrip. y en a yoo xam ne mën na leen ko prescrire. mu mel na nag rupture de stock bi nag moom day def affaire yenn pharmacien yi ku ci mel na Omar Chang. mënuñu wax ne arrangé wuñ parce que plus garab yi di génne ah plus ñun itam ñu def ci chiffre d'affaires tuuti <laughs> loolu moom c'est évident reportage ay satu pay opération désencombrement ci yenn mbedd yi fële kon ca Touba porte parole xalif général kuli Murit Sëriñ Bass Abdou Khadre ne li ko waral rek mooy euh, nekk ci waajtaayug euh, màggal gi euh, bëgg bu gan ñi yegsee dëkk ba fekk ko moo set lépp ni boy Sëriñ ba Abdou Khadre ci micro Mohamed Jo Diop caméra Talla Touba mbedd yi nii mel du ni maa mel kon loolu rek lañ jublu ci defar bi ba ci Serigne Abdoul xam ne bi muy àtt dëkk bi ak di ko moderniser ngir mu méngoo jamono yëpp jublu ci woon lu weesu mu mën a jëriñ nit ñi ak nit ñi ci dëkk Serigne Saliou itam ku ne xam na ne joxewoon la ci digal bañ dindi woon fi lu bari te loolee ba amutoon kon dëkk bi tey mbedd yu bari sakk ndax. te la ko jëkk demoon na ba ay mbedd yu mag yoo xam ne kenn mënatu faa jaar am na ci yoo xam ne ba fi ne sax mujjuñ ko mën a ndax nit ñi dëkk nañ ko ta yërmaane ñoom seen yërmaane dafa ëpp dafa jiitu ba moo tax ndax xam gi xam nit ñi tumuraat yi ak néew doole bi ak yaakaar bi leen indi Tuubaa ngir firndeel la Sëriñ Tuubaa waxoon ne dëkk bi koo fi sam xel indi ko ne saw xel dana def indi am na ci ñoo xam dañoo néew doole loolu lañ seet moo tax yi ci ëpp mënuñ ko mën a dindi dindi ak Cheikh Seydou Moussa itam ndiggale daaw loo ko njëkkoon la joxe waaye bi ñu koy dindi itam tàmbali màggal gi agsi tax mu ci sotti bari na moo tax ñu jiital ko ci màggal gi mu tàmbali te fexe nii nit ñi di ko sàmm te xam ne lépp seen njariñ rek la jublu Sëriñ Bass Abdou Khadre joriñ li ñu dénk bi réew mi Aly Ngouille Ndiaye moom it mi ngi sàkku euh, ci euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di agence yi war a liggéey ci euh, màggal bi képp koo xamante ni rek am nga loo ca war a def nga baral sa loxo ba bu ñu ca yegsee lépp it daal di yemb mu bëgg gaañi daal gën caa defuk farlu laata réunion d'évaluation bi ñu war a amal laata màggal gi ay kàddoom Cheikh Hassan Fall la ko dénk. kenn ku ci nekk gannaaw bi ñu jógee ci réunion yi nga xam ne ñoo jiitu depuis le mois d'août wax na fi mu toll li ci yeggul service bu ci nekk jël na engagement danañ defaat benn réunion d'évaluation peut-être vers la fin du mois te yaakaar naa ne buñ ci tollee bu boobaa bu doon suñu saako duñu bëgg kenn ku wax ne nañ ñu mayaat ay fan. waaye li ci ëpp solo ñaar yi ci ëpp solo wala boog ñett ndox mi courant bi sécurité. mangook euh, joriñ li ñu dénk biir réew mi ndox mi nag directeur général euh, SONES euh, moom màdduna ci coupure yi ñu nemiku ci yenn gox yi ci biir réew mi Charles Fall xam le ni situation boobu bokk na ca la ko indi dog-dog yi courant yi waaye nee na fu demee ni Petite Côte dootul yàgg loole kon ak pàttaliku lay doon leeral yi mu wàddu ci ci micro Cheikh Anta caméra Mamadou Gueye. ku ñu partenaire exploitant SDE informé nañu ni euh, ñaari fan yi ñu génn amoon nañu ay coupure courant ndaxte ñun mbirum ndox la ñu yore ay forage yi euh, courant koy doxal euh, yu bari courant moo koy doxal te terewul am nañu ay groupe électrogène wante gis ngeen ni amoon na fi ay ëkk ay taw yu yaatu ay ay ax géej gi ni mu yëngatoo woon ay yenn poto yi dafa daanu woon le temps que Senelec tamit di ko réparer di ko réhabiliter loolu moo indiloon interruption wu ndox mi mais euh, terewul tamit ñun ci wàllu ndox mi am nañu programme autonomisation énergétique léegi rek ñu ngi taxaw ak collaborateurs yi di naan mais naka la ñu mën a def pour que programme yi nga xam ni yëpp gouvernement benn ko ngànk si mbirum ndox naka la ñu mën a def pour mu gën a am njëriñ je pense que tey am nañu un niveau de d'autonomie énergétique qui se trouve en deçà de 50 pour cent mais dinañu dem ba complété ko à 100 cent ba nga xam ni mois de mars avril bi nga xam ni moom la ñu wax ni ouvrage yi dina nekk en service groupe yooyu mën a ñëwaale it pour que moom moo gën a am njëriñ ci population yi nga xam ni bu courant coupé ñun dinañu mën a doxal. ñu ngi gëstu sax tamit naka la ñuy mën a amee lu weesu groupe de secours li naan ay groupe de service loo xam ni mën na dox 24 heures sur 24. ma nga ko waxtu demi heure yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed ndiay moo ñu ko jàngal. la jërë ngeen jëf Aïcha Diallo faatu na dee na ci anam wu tiis te ñaaw te ruslu bil vox populi Aïcha Diallo benn xale bu jigéen la bu am fukkeet ak ñaar maanaam 12 ans dëkk ca yëmbal ko mi ko da doon fo ak i moroomi xalem xelam xale jàpp ko mu dugal benn bant ca ginnaaw ga bant ba càng ca muy nàcc lu bari ndey ja di Fatima jaaxle gàddu ko yóbbu hôpital bu Pikine ba ca Kancaroy ba mu yeggee docteur yu xool xale bi gis ne hémorragie yi la amee ci la ne yaay toll docteur yi ne kon fi lañ lay bàyyil xale bi boo amul deux cent mille francs duñu ko laal loolee àjjuma la woon vox populi nañu ci samedi ji biiru xale bi tàmbalee newe guddik dimanche jàpp altine xale bii di Aïcha Diallo faatu ma nga faatoo ca l'hôpital bu Pikine ndax deux cent mille francs yu ñu doon laaj yaayam te amu ko woon la amoon ca war a soogi l'observateur xëy na ci indi ay leeral yër leen xët mu njëkku yéenekaay bi benn portugais bi rayu ko mbokkam portugais moome mu dëkkaloon ñu naan ko Emmanuel Roberto moo ko rey moom sax nangu na ko ca kanamu sandarma ya leneen lu am ci yëf yi l'observateur nañu moo di waa jii Emmanuel Roberto bi ko sandarma yi tàncee di ko enquête mu xam ne jàpp nañu ko dafa yëkkati ñaari million di ko jox sandarma yi ngir ñu noppi ngir ñu bàyyi ko mu dem waaye gars yi faale ko sax ma nga ñu tëye ngir bañ mu génn réew mi réew mi bëgg a tas seeni borom dem di Thierno Bocoum docteur Abdourahmane Diouf waxtaan na ci journaliste l'Observateur yi ba ci candidature yi Idrissa Seck ci présidentielle yi dem na sax bay joxe xalaatam moom docteur Abdourahmane Diouf ci congrès bu ñu war amal ci parti bi beneen parti politique bu nekk ci jafe-jafe moo di parti socialiste ñi ñu bëgg dàqee ci parti ba kenn ca di Aïssata Tall Sall mi ngi ci le quotidien boroom Osez l'avenir nañu gaa yi ko bëgg dàqee ci biir parti bi nañu ko Touba ca la doom di neexe ndayam Aysata ne ñu ni secrétariat exécutif national bu parti bi doxalee keroog jëfi xale la def Aminata Diallo bokk moom it ci ñu bëgg a dàqee ci biir parti socialiste ne ñu ci journalisé ko Ousmane Tanor bi mu génnee boppam ci parti bi yàgg na débat bi am ci réew mi te koy jaaba jonge mu jëm ci ñetteelu mandat bu ñu ne président Macky Sall mën na ko amaat 2024 Walfadjri nee nañu Macky Sall bëggul ku koy wax waxi troisième nag bëggul li sànkoon Abdoulaye Wade di ko sànk moom mi sànko di Abdoulaye Wade réew mi quotidien nee nañu ordre des avocats yi ne dañu ko yóbbu ca kanamu conseil de discipline ndax li mu ne woon avocat état bi ay escroc la ñu bi nee nañu Abdoulaye Wade tontu na leen wax na leen seen bopp nee na ñooñu xàmmewuñu farata farata dëgg la Sud du Quotidien xëyee màggalu Tuuba ak ren gi àllarba lay doon juróom-ñetti fan ci weeru novembre maanaam 8 novembre comité d'organisation bu màggalu Tuuba gi xam le ne màggalu daaw gi dugal na ci koomuk Sénégal ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom benn deux cent cinquante six milliards les nañu bilan boobee comité d'organisation bu màggalu Tuuba gi ñoo ko joxe démb xam le nañ ne màggalu daaw gi ñeenti millions ngi doomi adama ak téeméer teew nañu ca Tuuba lu jege ñaari téeméer ak juróom fukk ci milliards génn na fa ma génn foofee te seeti waykat bii di Alioune Kassé Alioune Kassé borom caabi ji l'observateur xëy na ko tijjil ay buntam Alioune Kassé ne ay moyens yu mu jugaatee moom la amul Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy gërëm di ko sant yéen ñu doon teewlu xibaaru digg bëccëg bi télévision Futur Média mi ngi leen di jaajëfal dig leen daje incha allah 19h30 20 programme yi dinañ gis waat ngoon incha allah.